waaw ndaje bi de li ko waraloon mooy euh, dajewaat ci kaw daje yiñ daan daje ngir li tax ñuy daje mooy turu kuréel bi di aar daara lanu jugaat rek ngir li aar daara te euh, du tey lañu tàmbali daje yi tey du tey lay yem bi mooy sunu ñetteelu yoon mën naa ne wala ñeenteel bu ñuy amal daje yu ni mel ko ca Ndakaaru jaar Koungheul dem Kër Massar tey ñu ngi fii ci Thiès incha allah ñu ngi waaj Kaolack lu mel ne Njaareem lu mel ne Ndar partout daal ci Sénégal incha allahu taala aar daara dana fa dem tey nag li tax ñu dajee dafa am ñaari thèmes yu nu yëkkati tey benn bi mooy projet modernisation des daara projet modernisation des daara nag sénégalais yu bari buñ ko déggee dañ lu rafet la ndax li ñuy dégg rek mooy tur wi mooy projet. modernisation des daara mooy ñu fexe ba taalibe dootul yalwaanati di sol ay yére yu rafet di sol ay dàll dëkk ci kër yu rafet ñuy wax sénégalais ne leen loolu nun noo leen ko gën a bëgg bu doon loolu dong mooy modernisation des daara aar daara ak ñi mu àndal ñëpp dañ naan nañu gaaw voté luwaa bi waaye tey dañoo dajaloo fii ne aar daara ak ñi mu àndal ñëpp ci ay kilifa ak ñi bootu ñëpp ci ginnaaw aar daara ñi ngi wax ne doom jooju nga xam ne wala néew boobu nga xam ne gasoon nañ ba mu xóot ñu suul ko am ñu ne dañuy sulli ji néew ba aar daara day dolliwaat suuf ca néew ba ne bu ko kenn sulli mooy projet modernisation des daara ba ñu bëggoon a yóbbu assemblée nationale lan moo tax ñu bañ projet bi du defaral nu sunuy daara lañ bañ waaye lu yàq sunum njàngale moo nekk ci projet bi projet modernisation des daara dañ ñoo wax ne bu projet bi jàllee pour nga ubbee ci daara ñaar fukki document ak nangam da ko indi pour ubbi daara ñaari document la yoo xam ne ñaar fukki papier ak nangam ñooy nekke ca biir yii aju ci sëriñu daara bi yii aju ci daara ji ci boppam waaw école tubaab bi privé kan moo ko bëgg a ubbi école privée ñu lay laaj ñaar fukki papier ak nangam lu tax ñu bëgg ko laaj daara lu dul jafeel ko te boo ko déposé ba noppi moom kayit yooyu noonu le bu leen neexee ñu autoriser la nga ubbi daara bu leen neexul ñu ne la duñ la autoriser pour nga ubbi daara mu mel ne daal jamonoy feder bu lañ bëgg a delloo si ci Sénégal feder bu rek moom moo amoon sañ-sañ bu toll nii ku bëgg a ubbi daara da ngay ñëw ci feder bu ne ko dañoo bëgg ubbi daara bu ko neexee mu jox la autorisation bu la neexee du la ko jox ñuy wax ne feder bu faatu na nekkatu fi su amee yeneen feder bu yu bëgg a feder bu feder bu lu danañ leen wax ne feder bu nañu jëflante woon ak moom résister résistance boobu ba léegi moo fi nekk nanguwuñu projet bi tey nanguwuñu ko ëllëg ñaar fukki kayit ak nangam yi ñuy utloo utuñu ko jéemuñu ko même bu projet bi jàlloo jàlloon rawatina nag bi nga xamee ne bu nu xalaat mukk muy jàll li doy waar te xoromu mooy projet bi bu jàllee yow nga sonn lool dem maire de maire yi dem préfecture dem tribunal lijjanti kayit yu dul jeex bañ jox la autorisation ñu ne la benn autorisation nga sañ a daara boo bëggaatee beneen daara dangay demaat jaaraat fa nga jaaroon utiwaat yeneeni kayit pour ñu joxaat la beneen autorisation pour ubbi beneen daara loolu it njubadi la gu nekk ci biir projet bi tax ñu lànk ko beneen bi mooy daara ji yow mi ko moom di bàyyi boo faatoo sa doom jàngal nga ko yar nga ko tarbiya nga ko mais mënulaa donn ci daara ji doom jooju noonu le faawu ñu tëgg luwaa sañ-sañ boobu ñooy ñëw formé waat doom ji tàggataat ko ba gis ne am na këyit ak yu ko may mu mën a donn baayam ñu soog di ko bàyyi mu donn baayam lu ko moy doom ji dañ naan ko ca biti ci daara ji dem jëli keneen ca àll ba mooy yor daara baayam mais moom du ko yor donte am na xam-xamu baayam loolu mi ci projet bi moo tax ñu ne ñoo lànk bay ut ku nu lànkale dem na ba ci biir ñu ne projet bi bu jàllee juróom-ñetti at dong la seen daara ji yem huit ans du ko wees jàng alxuraan cam langal jàng tubaab cam langal jàng arab cam langal huit ans daal fexe leen ba arab alxuraan tubaab ngeen jàngal ko xale bi bu amee treize ans jeex na ndax cinq ans la daara ji di tàmbalee maye nañ benn garderie d'enfant nag boo xam ne moo jiitu mais cinq ans yi ci la ñu tàmbali programme mu daara ji ba treize ans bu treize ans yi matee xale bi moo xam jàng na alxuraan ba mokkal ko moo xam jàng na sariya fala daara ji yam jeex na programme bi daal mooy na am xam-xam ci tubaab tuuti arab tuuti alxuraan moo xam mokkal naa mokkalul su ko defee daara ja tëj na daara jooju noonu tamit dañ ne du ñun ñoo koy nangu ndax wax nañu leeral ne ñun ci suñ daara yii ñu yor da ngay jàng alxuraan ba wàcce toppaat ba mokkal léeg danga koy bind am na kenn ku tudd sëñ moor Xaari Gueye mi ngi fii ci daje bi bokk ci aar daara keroog bañ demee daaraam dañoo fekk ay xale yu ndaw bindal ñu kaamil te projet modernisation des daara bu jàllee bind kaamil dootul amati senegal projet bi bu jàllee mokkal alquranul karim di ko béqi dootul amati ci al senegal projet bi bu jàllee jàng laxdari yu dootul amati asmaawi yu du amati ibnu ashir du amati firilu alquran du amati ñu mel ne sunu kilifa yu baax ya nga xam ne dañu ñu daan firil alxuraan weeru koor projet modernisation des daara bu jàllee dootuñ amati ñu nu firil alxuraanul karim loolu moo tax ñu ne ñoo bañ bay ut ku nu bañ le beneen bi doy waar mooy projet bi bu jàllee day xeex suñu kër mag ñi nekkoon fii ci Sénégal ndax projet bi bu jàllee dootul jàngale ci téere alaaji Malick Seydil Haaji Malick projet bi bu jàllee dootul jàng dootuñ jàngale ci téere Serigne Touba du téere maam ab Abdoulaye Niass du téere Baye ñes du téere maam Bou Kounta amul ku ñuy jàngale ci seen téere dañ ñu wax nenu projet bi bu jàllee yéen ñëpp force dangeen di bàyyi la ngeen jàngoon am benn programme national bu ñu tëgg ña ko tëgg yéen ñëpp programme boobu ngeen di jàngale waa programme boo xam ne ña ko tëgg jógewu nu ci daaray mag ñi jànguñu ci majalis yi programme bi du programme mu majalis lul franco arabe Sénégal li fi ëpp ay daaray majalis la moo tax ñuy jël majorité ne majorité mooy àtte te majorité daara yi ci Sénégal li nuy jàngale projet bi gisu ci boppam loolu tax ñu ne ñoo bañ bay ut ku nu bañ le bu bu ñu xeexee daara mooy xeex diine loolu kay jarul laajte daara bu daanoo Sénégal mooy diine daanu na beneen ñaareel bi tax ñu daje mooy dafa am kuréel bu tudd Amnesty International Amnesty dañoo jóg ne dafa am benn code bu ñu defar tuddee ko code de l'enfant bu ñu yemoon foofu rek de ñun sunu yoon nekku ci ndax ku ne am enfant ci Sénégal waaye dañ cee mbegar feggu enfant taalibe code bi bu jàllee dañu ne seen publication yi tasaaroo ñëpp jot ci mooy dañoo bëgg ñu voté benn loi assemblée nationale boo xam ne bépp daaray cosaan bu daan loo say ndongo na dakk boo demee dëkk maam Seydil Hadj Malick bii fekk fa daara boo demee dëkk maam Bu Kunta bii ci wetu Thiès fekk fa daara yalwaan boo demee dëkk maam amari ndaag bii nii ci cana ba fekk fa daara yelwaan dëkku maam bii ci Thiès yaa ngi fi fekk nangami daara yelwaan projet bi bu jàllee Medina Gunaas Medina bàyyi Touba euh, mbooleem këru diine yi ci senegal sañ daara ya fa nekk amnistie nee nañu dañoo bëgg waa assemblée national ngeen voté loi procureur jàpp sañ daara yooyu yëpp tëj ci kaso mooy yalwaan ak ku leen di yalwaan loo ak mbooleem forme yalwaan ci mbooleem tere u senegal ñu ne dañoo bëgg ñu interdire ko beneen bi ñu teg ay conditions yoo xam ne mboolem kuy yore ci daara maanaam bu projet bi jàllee internat yëpp day tëj projet bi am na si indi bu jàllee mboolem internat day tëj loolu na ko ñi yor internat ñëpp yëpp ndax ci biir projet bi dugal nañ ci ay mbir yoo xam ne ci wàllu loisir maanaam xale bi dafa war a am benn temps buñ ko may mu dem foy waruñ ko tëj bàyyi ko noonu mais dañ ko war a may temps mu dem foy loolu droit la war a doon léegi ñu voté ko assemblée xale bi dañoo war a fexe ba fi muy nekk lu jëm ci wàllu set loolu baax na waaye lu jëm ci wàllu sanitaire maanaam lépp lu jëm ci wàllu matériel yu lay may pour nga mën a faj xale bi jox ko ay garab daa war a nekk ci bërëb ba condition yanu teg pour nga war ko yoree xale bu loi bi jàllee dañuy dugg ci biir internat yi internat yëpp la ñuy tëj loi boobu ndax gars yi danañ seetaan muy jàll te ñi tëgg lu loi bi mooy ñan mooy waa Amnesty International ana ñan ñooy waa Amnesty International mooy bàjjenu góor jigéen yi ci senegal waaw ñooñu la Amnesty ñoom ngay dégg buñ ne dañoo bëgg ñu criminaliser góor jigéen ñu génn ne ànduñu ci Amnesty ngay dégg ñu ne am na góor jigéen bu ñu làpp ñu ne c'est pas normal jaaduwul dañoo war a bàyyi góor jigéen ñi ñu am seeni droit même Amnesty moo taxaw ne dañoo bëgg code l'enfant pour talibé Amnesty ak seen code ca pot la leen waa aar daara wax amnistie ak seen code ca pot ñi ngi wax mboolem waa assemblée nationale di wax président de la république ne néew bële ñu suuloon yëg nañ ëmb bu waa amnistie ëmb dañoo bëgg nandal leen ay xoox ëmb bi na tuuru du juddoo fii ci Sénégal doomu amnistie ji code de l'enfant boobu l'enfant boobu du fi juddoo du fi màggee te waa daara ji nekk fi lu mu leen jaral benn jaral lanu ko jun tey mooy première fii ñu koy dénoncé bu ñu demee Kaolack danañ ko dénoncé suñuy plateau danañ ko dénoncé suñuy daara ci suñuy yaasin danañ ko su suñuy dog danañ ko dénoncé suñuy sujjóot danañ ko dénoncé ngir projet bi yàlla naxasal ko ak képp ko koy doole président de la république nag Macky Sall la ñuy avertir ne ko loi bu jàll assemblée bu jàllee dalaa neex opposition bi ñu leen di avertir léegi loi bu jàll assamble da leen a neex ndax léegi nii la bëskil moo am assemblée nationale ñuy wax opposition bi di wax président de la république bu leen am na si gasal kàmb ngeen dugg ci waa daaraa ngi sëpp di leen xool te gis nañu loi bi yër nañu ko gis nañ li ci nekk leeral nañu ko taalibe lañ jug ne du amati Sénégal yalwaan nga xam ne benn maslaxa la boo xam ne lu koy dindi indeegunu ko ñu ne du amati sëñ daara yi yalwaan loo nañ leen tëj bés bu ñu leen gasalee kàmb ba ngeen voté loi boobu noonu la di ngeen def face ak sëriñu daara yi. toogaguñoo waa toog nañoo kilifa yi rado man am na ñu ñëw ci ñoom seet si ma waaye dañoo ñëw laaj ma ci mbirum daara may profité tamit ci sa laaj boobu di leen wax ne leen waa amnistie ya ñëwoon ci Maxtaar Sarr lañ ko doon laaj jëmul ci lu dul daara ay cosaanam. fu ngeen déggee ñu ne waa am na si gisee nañoo ak aar daara ne aar daara ànd nañu ci seen code bi waxuñu la am. toog na ak yéen waxtaan ak na noonu ñun laaj ñu ay question ci daara ak cosaanu daara laaj ñu ci yalwaan ñu ne leen yalwaan amagul lu ko fii jëlee dóor xale ba gaañ ko ñu ne leen ñool duñ ko cautionné kenn du ko tey tamit mais njuumte lay doon ndax ànd ngeen ci ñu voté ay loi nangam nangam ñu ne leen déedéet ndax am na loi bu fi nekkoon ñu bañ ko. kon lu waa am na si dem ne waxtaan nañoo ko waa daara yi ñañ ko wax nañ xam ne la wax amul ànduñu ci seen loi bi tey ànduñu ci ëllëg dañoo ñëwoon di def enquête di ñu laaj tontu nañ leen waxuñ ñu dañoo bëgg a voter loi waxuñ ñu la ca nekk ñun ñoo dem gëstul suñu bopp ci seeni page Facebook ñu gis ay vidéo yuy circuler vidéo boo xam ne ba France 24 ñu ngi ko fay jàllale am Amnesty bu senegal mën a defar benn vidéo une minute muy jàll France 24 fu ñu jëlee xaalis bu ñu fayee France 24 pour mu leen di jàllaleel seen vidéo ñaata million lañ ca fay ak kan moo leen jox xaalis bi ndax waa am Amnesty ñoom ñooy cotiser ba am lu ñu fayee France 24 ndax waa am Amnesty dañoo am ay tool yu nuy bay ba jaay ko am lu ñu fayee France 24 wala waa am Amnesty daa am lobby yu nekk ci seen ginnaaw jox leen ni million ñu am lu ñu fayee waa France 24 waaye ñoo xam ak seen i ñoo xam ak seen i million ñoo xam ak seen vidéo yu ñuy jàllale national ak international ñoo xam sénégalais yi voté seen pétition bi tamit nañu ko arrêté li ñu leen wax c'est pas vrai amul nañuy jàppalee góor jigéen ñi noonu la ñuy xeexee daara yi loolu mooy réalité bi kon képp ku voté seen pétition yow participer nga ci ñuy xeex daara Sénégal te loi bi bu jàllee lu ciy conséquence ëllëg boo taxawee ci sa kanamu boroom yow mi signé signé pétition bi di nga ko layoo ci sa kanamu boroom loolu la ñuy wax mbooleem sénégalais yi nga xam ne ñoo bëgg a lii di pétition bi loolu moo doon li tax ñu daje fi fi ñuy daanalee mooy ñaan te waa aar daara yëpp ñu ngi koy ñaan fii ñu ñëw tey ci waxtu wi nuy waxee am na menn mbokk daara bu nekk fii ci kaso bi ñu koy tuddee Serigne Cheikh jaan Seck yéen ñëpp xam ngeen cene ba gii di dëkku daara daara ju yaatu moo tax mu ñëw ba fii ci Thiès ubbi fi daara dégg ngeen xew-xew ba xewoon yéen presse bi yéen ñu ko jottali mooy ñaari ndongo ca daaraam am kenn koo xam ne jëf na jëf ji ñaaw morom ma ba mu jaare ca ñàkk ba kanam loolu moo tax ñu ne ko moom mooy responsable daara ji fekkewul tinul santaanewul ab dëj la demoon ba mu ñibbisee la loolu xew gannaawam ba mu ñëwee ñu woo ko woolu waat ko waxtu wi ñu ngi ko jàpp tëj ko ci kaso bi ñuy sàkku ci procureur de la république ministre de la justice waaw ministre de la justice ak président de la république waa aar daara ñi ngi leen di ñaan di leen saraxu gannaaw bu nu jógee ko ci daje bi ñu libéré ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Tidiane Seck donte liberté conditionnelle la aar daara bëgg na donte contrôle judiciaire la aar daara bëgg na waaye nañu ko libéré mu delluwaat heure bu ko ci daaraam heure bu ko yoon soxlaa woolu ko mu dellusiwaat ñu déglu ko te ñu xam ne moom santaanewul fekkewul gannaaw bu nu massa nag woy waajur ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen njaboot ndax xam nañ ne loolu lu métti la lu ñaaw la te noonu la amul kenn ku ci ànd ci Sénégal gannaaw bu ñu leen massa woo ñoom jur yi nga xam ne ñoo ñàkk seen doom ñi ngi wax ne sëñ daara ba kat du ci responsable lu dul mooy boroom daara ja ku mel noonu nag war nañ mën a woyofal bàyyi ko mu delluwaat ci daaraam di jàngale heure bu ko yoon soxlaa woolu ko mu ñëw wuy si loolu la ñuy sàkku di ko ñaan ci turu aar daara ak mboolem sëriñ daara yi fi teew wa wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.